alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah salaa sallam mbokk yi ci yàlla ñu ngi ba léegi suñu waxtaan bi aju ci xam-xam waaye ak jigéen ñi mooy jigéen ñi nga xamante ni macha allah xam-xam jaraloon na leen lu ne ndax tey bu ñuy wax xam-xam ñu ci bari dañuy xalaat góor ñi waaye fàtt jigéen ñi fekk ni bu ñu delloo gis ni ndeysaan ci waa salafu saalih amoon na ci ay boroom xam-xam yu mag yu mag sax ñoo xamante ni dañ daan def ay fatawa dañ leen di laaj ci diini ñuy tontu macha allah loolu nag depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la soxna yi euh, yeewu ñoom it fu góor ñi tegoon seen tànk ñoom ñu teg fa seen tànk fu góor ñi dem pour wuti xam-xam ñoom it nga gis leen ñuy sàkk ñoom it xam-xam moo tax saxaabiyaat yi demoon nañ ndeysaan xadiis boo xamante ni euh, Buxaari yi génnee na ko rahmatullahi alayhi ak muslim ak ñeneen rahimahumullah ñu nettali nu jigéen ñi bëggee woon xam dañoo ne demoon ba dañ daan euh, concurrence da daan am seen diggante góor ñi subhanallah est ce que tey loolu am na suñu diggante tey a gis jigéen boo xamante ni day xër ci xam-xam jàng xam-xam ngir jëfe ko ngir nekk macha allah mën cee yar njaboot gi waaye mën cee joxe exemple incha allah tey moo tax jamono yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa benn bës jigéen kenn ko jigéen dafa ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi di jàmbat di jàmbat abi saïd al xudri mooy netta radiyallahu ne jaat imraatun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulallah dahaba alrijaalu bi xadiitik fajcal lana min nafsika yowman naatika fii tucallimuna mima callamaka allah allahu akbar qaal ijtamacna yowma yowm kada wa kada fa ataahunna fa callamahunna mima callamahu llah rawahu albuxaari wa muslim wa ahmad rahmatullahi alayhim ajmain mu ne ku jigéen dafa ñoo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam góor ñi daal ñoom ñu ngi wut xam-xam rek yow euh, te yàlla da la yónni daal bi maanaa da la yónni ci ñun ñëpp mooy góor ak jigéen ñun nag tamit dañoo bëgg nga jox ñu tamit nga jàngal ñu comme ni ngay ni ngay jàngalee góor ñi comme ni góor ñi di profité ci sa xam ñu ne dañ cee bëgg a am dañoo bëgg a jàng nekk ay borom xam-xam nekk ay firikatu alquran macha allah dégg nga de yéen ñoom dañoo bëgg a jàng ndax bëgg a nekk ay firikatu alquran nekk tamit ay macha allah ñuy jàngale comme góor ñi ñuy jàngale macha allah ndax lan mooy que ni yàlla fu mu tuddee góor mais dafay tudd jigéen ñi innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitat was saadiqina was saadiqat was saabirina was saabirat wal xaashiina wal xaashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saaimina was saaimat wal xaafidina furujam wal xaafidat wa zakirina allah kathiran wa zakirat ñoom ñëpp nag góor ña jigéen addallahu lahum magfiratan wa ajran azima gis nga de donc moo tax góor jigéen ñi nañu yi jóg ñoom it jàng xam seen diine gis nga nañ jóg jàng xam seen diine moo tax ndeysaan gis nga Aïcha radiallahu taala anha wa ardaha da daan dem ba tagg sax jigéenu ansaar yi allahu akbar naan jigéenu ansaar yi yàlla na yàlla yërëm jigéenu ansaar yàlla na yàlla fay leen yàlla yàlla sàmm leen nee na ndax ñoom euh, li nga xam moom mooy kersa teewu leen dem wuti xam-xam tey da ngay gis ñoo xam dañuy kersa woo des fois kersa boo xam ne foo kersa la du dëgg sax koo xam danaan moom dafa am kersa mënul dem jàngi te foo ko gis mu ngi ci marché yi foo ko gis mu ngi ci euh, subhanallah mbedd mi waaye bu dee xam-xam moom bu lay yóbbu ci yàlla bu lay jege jegeloo aljanna yërmande yàlla loolu moom mu sori ko naan dafa kersa moo tax Aïcha di wax ci hadis woo xam ne muslim rahmatullahi alayhi génne na ko ak ñeneen Abu Daawud rahmatullah ak Ahmad ak ñeneen rahmatullahi alayhim sayidna aïcha radiallahu anha mu ne nicma nisa nisaau l ansaar lam yakun yamnaahunna alxayaa an yatafaqahna fi diin nee na ñooñu kersa ndeysaan waa ansaar jigéen ansaar yi dañ daan góorgóorlu wuti xam-xam rahmatullahi alayhinna ajmain nee na ñoom dañ daan sonn ngir lan wuti xam-xam kon gis nga mbokk yi moo tax macha allah boo xoolee aïcha moom ci boppam lu mu amoon ci xam-xam ba tax na sax subhaanallah Ah, ñu bari lañ daan ñëw sax ci saxaaba yi ñu góor ñi macha allah di root ci moom radiallahu taala anha wa an sahabati ajmain ba macha allah ibnu shihab az-zuhri day wax rahimahullah mu ne law jumia ilmu aisha ila ilmi jami ummahati almuminin wa ilmu jami nisa la kaana ilmu aisha afdal neen buñ dajoon xam xam-xamu soxna macha allah eh, moom mooy que ni soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp nga dajale tamit soxna yëpp sax nee na xam-xamu Aïcha moom mooy féete kaw ndax lan mooy nu mu sonnoon ci xam ba dem ba yenn borom xam sax limal lim nañ subhanallah xoolal ki nga xam moom mooy Zahabi rahimahullah muy wax ci tabaqaatul ula ba muy wax ci min alxufaaz nee na yablagu masnad Aïcha radiallahu anha alfayn wa miatayn wa ashra ahadith Aïcha lu mu moqaloon ci xadith subhanallah demoon na ba ëpp lii deux mille deux cent dix xadith subhanallah deux mille deux cent dix xadith ba lu ko ëpp Aïcha amoon na ko ci xam-xam subhanallah yii Bukhari ak Muslim dëppoo nañ ci lu mat 174 bee Bukhari kese moo ko génne lu mot par exemple 54 bee Muslim rek ko génne lu mot 69 waaye Aïcha dallanha ndeysaan te mu gaañu atum 58 euh, après hijra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga nu mu amee woon xam-xam radiyallahu taala anha wa ani sahabat ajmain loolu la du Aïcha rek même yeneen sahabiyaat yi dañ ci leneen gis ñu macha allah ni ñu sonnoon ci xam ak yeneen nit yàlla yi mooy ci taabe ci nga xam ñoom moo bokkoon ci mooy taabiiyaat yi ndeysaan nga gis leen ni ñu amoon xam-xam xoolal kii nii saydatu amra amratu bintu abdurahman ibnu zurar al ansariya an najariya ndeysaan nee nañ moom lu mu amee woon ci xam-xam mu ngi jàngee woon ndeysaan ci aïcha aïcha jàngal na ko moom it mu nekk boroom xam-xam macha allah macha allah Ah, ibnu Hibbaan day wax mu ne kaanat alamu nnaas bi xadis Aïcha neen ko jigéen kii moom moo gënoon a mokkal xam-xam ci xadis yu Aïcha radiallahu taala anha solo ci yonent bi sallam ba Omar ibn Abdul Aziz da doon dem ba moom Omar ibn Abdul Aziz nekkul n'importe qui da wax naan mu ne maa baqiya ahadun alam bi xadisi Aïcha minha amul kenn ku des ci kaw suuf ku mokkal xam-xamu Aïcha ah, raw soxna si nii moom mooy Amra bint Abdurahman ibnu Zurara al Ansari an Najariya allahu akbar subhanallah omar sax danaan da dellu ci moom di ko laaj yenn masala ci diine tey ana soxna yi tey ana soxna yi ana tey yaayu kër yi tey ana tey soxna yi fu ñu toll tey ci xam-xam tey nga xool subhanallah dem ba imaam az-zahabi subhanallah imaam az-zahabi di wax ci moom rahimahullah mu ne kaanat nee na soxna soosu kaanat aalima subhanallah faqiha xujja kathirat al ilm wu ndeysaan nee na kooku borom xam-xam bu mag la woon bëri woon xam-xam nekkoon na xoolal ko am ko xam diine am féq ci diine mooy jurisprudence diine xam ko waaye lay yi da ko daan teg andi dalil yi di ko teg nee na bëri woon xam-xam nee na kooku noonu moom mooy soxna soosu macha allah nga xam mu ngi gaañu moom ndeysaan euh, euh, ver les années avant cent ci hijra ci la ci la gaañu rahmatullahi alayha rahmatan wasia ak ñeneen ak ñeneen incha allah taala ci ay borom xam-xam donc dinañ continuer nii euh, tuuti tuuti di lim borom xam-xamu jigéen ñooñu ndax lan luy bit bi mooy réveillé conscience suñu soxna yi tey suñu doom yu jigéen ñi tey suñu yaay yi tey ngir ñoom it ñu mën a fagaru jàng incha allah tey nag amuñu lay sa biir kër sax mën nga jàng tey xoolal ordinateur bi nga yore internet bi nga yore incha allah donc pour nag ñu am xam-xam faw ñu daal di génne li nga xamante ne mooy des fois da lay tee jëm ci xam mooy seytaan télé tey émission yu bari loolu nga xam ne day fàtt xol ndax bàkkaar yi ngay xool ay bàkkaar di déglu ay bàkkaar jotaay yoo xamante ni jotaay yu jëw la jotaay yu wax lu dul dëgg gis nga eh, mu ngoog ay invitation des fois yoo xamante ni mën na ñàkk yu mel noonu ak bëgg àdduna ak fàtte yowmal xiyaama loolu day tax nit ki mooy xolam day day day tëju ba pour mu wuti xam-xam day jafe yàlla yàlla sàmm ñu sàmm suñu soxna yi yal na yàlla may ñu ay soxna yoo xamante ni macha allah bu ñu leen gisee rek suñu xel day delluwaat ci macha allah saxaabiyaat ya ak taabiiyaat ya mooy ñoom Aïcha radiyallahu anha ak ñoom macha allah Amrat ibn bint Abdurrahman ak ñeneen ak ñeneen incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh